da leen daan jël di leen yóbbu ginnaaw bu jàngee seen alxuraan tëral li ñu war a tëral yóbbu leen ci dëkki lislaam yi ci dëkki naar yi ci réewi arab yi ñu di fa jàng xam-xam loola it bu mu ko defee bu mu dikkee am na impact boo xam ne am na ci bu am solo moo di njàngale mii ñu gis mu yees ndax bu jëkk xëy na ci ay basang lañ daan toog di ko jànge hmm. waaye yeesal gi ñu ko yeesal di ko def ci ay tableau di ko def di toog ci ay toogu yu gudd muy ay banc loolu itam am na te loola relève ba sëriñ Cheikh Gaynde Fatma liggéey ci liggéey bu am solo ki nga xam ne it mooy Cheikh Mamadou Mourtada liggéey ci liggéey bu am solo ndax ñooñu bi ñuy mottali liggéey boobu mën naa wax ne la sukkandikoo la ci ëpp baaxasaat yooyu nga xam ne Cheikh Mouhamadou Fadil doon na ko jël di ko yónni ci réewi naar yi ñuy dellu si ñooñu ca lañ sukkandiku bi ñu ñëwee ñu doxal liggéey boobu kon loolu mën nañ ko cee jàpp ci lawal goo xam ne Cheikh Mouhamadou Fadil doon na ko lawal xam-xam ittewoo goo xam ne doon na ko ittewoo ñor goo xam ne itam ñoroon na ko waaye da ko daan def mu mel ni yoroon ci melow xorom ndax xorom dafa dul lu mën a ñàkk ci aw ñam hmm. waaye saa su ci xel yépp demandoo rek ëpp na wala mu yées kon su fekkee ne xel daawut dem ci moom wala la mu daan demandoo ci moom lu ca bari wala mën naa wax na sax demandoo wut ci moom la ko waral mooy lépp dafa doon jaar ci yoon lépp itam di tegu ci aw yoon kon balaa nga koy gis rek da ngay dànd sa bopp taxaw fële xool ko càmbar ko gis ni liikat ak lii la moo tax waaye bu ñu toogee muy dem rek dañuy gis ni lépp mu ngi dox ci doxin wa nga xam ne moom la gën a rafete kon loolu mën nañ cee yemandi ñu jàllaat ci yeneen tomb yi ba ci kanam ñu dikkaat ci yeneen ay misaal yoo xam ne mhm. danañ ñu biiralal ne Cheikh Amadou Fadil kat borom xam-xam la woon mhm. da daan jàngale giiru dundam li mu fi nekk lépp mhm. mën naa wax ne bi mu fi nekkatul sax ay njàngale yooyu mi ngi wéy saa su nekk d'accord ci ay ay orientation yu mu daan jox nit ñi da nga wax léegi lu am solo ci wàllu jaamu yàlla da nga wax ne euh, bu ma déggee sa wax Cheikh Ndindi mooy Serigne Touba li mu fi bàyyi li ci ëpp solo mooy jumaa bu doon bu doon bu doon bu doon wàllu loolu maanaam maanaam li mu fi baax loo xam ne nit mën na cee teg bët te waxuma nag doomu aadama maanaam bu doon alal wala ay or comme ni nga ko waxee léegi wala matériel boo xam ne bii dañ naan kii lee ko fi bàyyi mais jumaa ji mooy symboliser Touba. waaw sëriñ Maodo jërëjëf mm, Cheikh Khadim radiyallahu anhu ak mu yar. waaw mu yar it mm, ñoom donn woon nañ ko ci doon. Mm. ñoroon ci kenn koo xam ne adduna la daan moo la daan tax a xëy wala mu tax laa gont amul kenn ci ñoom koo xam ne eh, dañ naan alalam ja Sëriñ Tuubaa ci keppar ñoo xam ne dañ naan alalam ja nga xam ne maanaam muy muy xëy di kopp kopp di dagale alal déedéet am nañu wërsëg di leen dikkal wet gu nekk ndax wërsëg bokk na jumtukaay jaamu yàlla yi am na ci eh, aw yoon maanaam mbooloo mu lënkaloo mu nekk ku ne dana am foofeeti waaye nag li ma jublu wax mooy amul kenn ci ñoom koo xam ne daal alal wut alal la nekkoon ci boppam wut alal. Hmm. déedéet ëllëg daw ko xëy daw ko. dégg naa sëñ Fallou sax li am na ñu wax loolu. moom kay. dégg naa bi muy dem néew néew na lool. li mu fi bàyyi naa taw lool ku tabax ku tabax euh, ñi ngi naan ñi juróom-ñett fukki junni yu manqué ñi naan ci ci ay lim ay lim dégg nañ ci ay lim waaye ala kulli xaal mooy bay yu fi àll. maanaam bàyyi fi lu ñuy wax. bay déedéet ndax ni ko doon yitteel maanaam daw dagane. Hmm. daw dagane daw dagat ñëw mu jox ko moom lu ñëw mu def ko fi ma war a dem Cheikh ñëw alal bu dajee rek dënnu lu soxlaa ba nekk. Uh-huh. alal saa bu dajee ba bari rek bari genn bari gi ba ñu limu rek bari na soxla yu mu yu mu yu mu a faj ca faju uh-huh. ca sox ak soxla yu mu moom nag fekk mu am soxla su rëy rëy rëy am nga sëñ Tuubaa bu ne lii mooy sama bëgg-bëgg. Uh-huh. maanaam nga xam ne tey bi muy dem néewu leen tabaxal leen ma pare. néewu leen tabaxal leen ma sama dëkk bee nangam. néew leen dafa ne moom lim leen wax moom mooy tabaxal leen yàlla néeg am néegam bu yàlloo ak moom wax ko mu Cheikh Amadou Fall waxin woo xam ni ñor ga ëpp na ñor ga ëpp na moo waral ba ñoom soxla soosu moo seen yitte Cheikh Amadou Fall lu mas a am ci la ko def ci bu muy rëdd jumaa ji nee nañ mel na mag jàpp ni ki dafa mbëm ne ko mbàkki yow li ngay rëdd moom xanaa ñun sàkkil ko sax mënuñ ko ngir yaatu gi booba dëkk ba dëkk ba ni mu demewoon dëkk ba ni mu ni meloon la du du léegi mm-hmm. ay néegi ñax ak néegi sàkket laa wax ñu ñu taxaloon ñu ñu mm-hmm. kon ñu liggéey fa liggéey bu rëy moo jumaa ji moo gën a euh, moo gën a mu mu mm-hmm. ëpp daraja ci euh, loo xam ne mooy wane euh, loolu dafa am dafa am lu muy lu muy wane sëñ Maodo Cheikh laa radiyallahu anhu dundam gépp weesuwul woon dundal alquran ak sunna sunnati bi sallallahu alayhi njabootam gii seen dund gépp weesuwu loolu lool saa boo ci masaan jëflante ak nit ba bàyyi xam ne kii alxuraan ak sunna suy jëflante mais mais la woon itam loola tax li wax dafa ne danaa yeesal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa beneen ba bay ba mu ne danaa feeñal danaa ko biral ba ñëpp gis sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu soobee yàlla. waaw lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu al-gharra wa inni ahmadu ba ca des ca muqaddimatul muqaddimatul amdah mu ne wa sunnatahu insha rabbi ubayyin kon kooku itam yi moom lan la woon. Mm-hmm. maanaam lu ko dal lu ko dal weesuwul lii maanaam taal jàngu yoon sasam bi bi bi fekkoon muy géem mu fenk gilit yi. ne nag dama koy boyalaat ba ñëpp gis ko. Mhm. ñu nar cee roosam ndox. Mhm. nar koo fay muy muy muy muy wër wër bu nekk ngir fepp ndox. bañ ko walaal looloo ko bu ko dal <laughs> looloo ko. coono kër ko ngir tabax ay ay ay tib yi ay xeet Cheikh Amadou Fadal mi ci la bokkoon. loo xam ne la war a nekk ci ñoom ci ay jikko ne ci ñoom ndax suñu Maodo bul fàttali ne nit jikko la. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne innama bu'ithtu li utammima makarim al axlaq lenn rek innama araatu xasr la maanaam day takk dana def mel ne dana yont dana lenn rek moo tax yàlla yónni mooy ma mottali jikko yu baax yi mhm. julli koor asaka xaj makka boolem luñ di jëf tàggat ay jikko ko tax man tàggat ay jikko ba li nga war a yëg sa diggante yàlla defar la ba nga ba nga ne nojj ba li nga war a yëg sa diggante yàlla nga di ko yëg nday jikko yi nag ummul axlaaq ummu makaarimil axlaaq di ak at taqwa moo tax abaadaat yëpp boo gis yàlla di tënk naan yaa ayyuha naasu abudu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wala boog yaa ayyuha naasu abudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun mboolem ibaadaat yi loolu lay jëriñ maanaam ngir sëxëñal ci nit ki defar ay jikko yàlla dogal nag jëmm ji ñuy waxtaane Cheikh Mamadou Fadal radiyallahu anhu nekkoon ku yoroon jikko yu rafet jikko yu tey jikko ñaari wàll daal tasawuf dañ lay leer na la nit ki dañ koy summil mbubbum jeexit yi nekk ci an nafsul ammaara bi suuf bakkan bi nga xam ne lu ñaaw lay digle solal ko jikko yi nga xam ne an nafsul lawaama moo ko war a solal muy at liy wa taxliya at taxliya mooy jikko yu ñaaw yi rëy wax lu amul njisal bëgg àdduna xeeb nit ñi naw say jëf xeeb yu mel noonu di jikko yu suufee eh, lislaam day ñëw taxaw ci yow ngir dindi ko ba mu set wecc def ci yow ragal yàlla bëgg yàlla mën a muñ mën a jéggale mën a suturaale tabe lewet mm-hmm. jikko yu baax yooyu nga xam ne mooy jikko yu salli mm-hmm. lislaam def ko ci yow Cheikh Amadou Cheikh Amadou Fadal yàlla noonu yàlla dogaloon na jëllil naa moom dañ ko ci tàggat ba ku mas a taqoo moom dootoo xam lu dul jikko yu baax